di Baay Seex mu nekkoon koo xam ne jëmmam rek jëmmu ji rek wane woon na lu bare bare bare bari ci aw doxinam soo masaan a gis jëmmam rek bañoon na ko ba soo dee dox ci mbedd yi ba seen ku sol lu ñuul da nga jàpp ne mooma ndax lu ñuul loolu mu daan sol li mu ci jubli mooy bañ a doon kenn ci kanamu ay kilifaam waaye it bañ kilifaam di ko sant dara muy dem di waaji loolu waraloon foo ko fekk day sol tëni bi rek ba yaakaar naa lool lool lool ne tëni boobu sax ci la wàcc ab liggéey kon ñun ñi bi li ñu nekk nekk ay gone ànd naag sama baay ba tàyyi ñëw fi fekk mu tiim suñu amar jaxate yor ak wantaay di ko upp man ci sama da na laaj sama baay ki moy kan ak pëstéefam bu reuy bi mom moy kan mom xana du noppalu ndekete yo boba mok ki tok ño bok jen deret waaye xurul lolu ci mom. waaye ma nga xol mag ña mag ña mag nya ci àndoon ak mom kon Baye Cheikh Anta mom kep ko xam ne da nga koo waxuma la muy sa jawriñ waxuma la muy sa kilifa wala ngay yewu ci dekk bi waye kep ko xam dang ko xam rek nga mas koo gis te defut dara ci yow ci wàllu pëseef yow war ngaa xoolal sa bopp bu baax a baax a baax loolu moom ñëpp mën nañ ko seere ndax sooy bëgg-bëgg lu yàlla ba ñëw ci moom dana la wax ci yàlla loo xamutoon sooy jaay pëseef ci Sëriñ Tuubaa ba ñëw ci moom dana la wax ci lu mu dund ci pëseef loo xam ne moo la koy waxal boppam ne la maa ko fekk wala maa ko defee noonu soo dee am xam-xam tam ba ñëw ci moom boo dikkee da nga fekk ci moom xam-xam bu fees dell ba noppi doo yëg ni am na ko ndax positif bi nga xam ne moom la ko moom la ko moom la ko gàlle te ñun ñëpp maase na maase nañ jàng ci moom ne ndekete nit mën naa am ab cëram ba noppi laxasaayoo ko di wut beneen cër Baye Cheikh dafa doonoon mu doon ba noppi fab lam doonoon teg ko ak léegi mu kaala woo ko waaye du ko def ak laxasaay tag ko ci ndiggam di wutaat la neen te kenn ci ñun nettali wut ne bu fekkee wutee tax a am lam doon wut am na ko ndax wut na wute na nu ne wute na fu ne wute na ca ku ne ba ci bi yi lu ci moom sax bu leen mësaan a gis day wut ci ñoom ba am ba mën a am dara amul kenn ku mos a toog ak Baye Cheikh Anta ba jug ci moom te du jàng nga ci moom mbaa mu jariñ la mbaa mu wax la loo xam ne boo ko boo ko jëfandikoo boo léegi da nga jariñ kon kooku du ko ñuy fàtte ba ilaa yawmi diini ba ilaa yawmi diini du ko ñuy fàtte ndax mboolem lu fi ak njàmbaaram njàmbaaru ña ko jiitu woon maa ngi koy xamee ci ak njàmbaaram moom te suñ Tuubaa dafa wax ci nax du xadaayil xaaj ne laysa su jaawul la si yaxmi fawaarisuhu yow ma taxaani isaamal xar bu tas tastaxilu jàmbaar du caagee ne buñ demee ca xare ba rek nga gàddu ab ab xeej wuti noonu yi mooy jàmbaar dëgg-dëgg waaye jàmbaar mi ngi ci defar sa jikko ba ku la jaxasoo ko jaxasoog yow du la bëgg a bàyyeeti bàyyi bàyyi bay bàyyi bàyyi Seex amul kenn koo xam ne jaxasoo ak moom tadu bàyyi na ci yow loo xam ne mënatoo jaxa mënatoo jaxasoo kenn ci jikko ju rafet melokaan mu rafet bëgg lu baax bañ lu bon sax ci ak jub ba noppi te ko digle ba noppi man la ci ba mu koy man dëgg dëgg dëgg dëgg ñëpp seere nañ ne su ma saan dem ci tool yi moo fay njëkk moo fay mujj mo fa ñëk ta amul lenn lu mu jommale woon boppam fori bantak buub ak gasi pax ak defaraati sàkket ak fetañ ak yëpp bi mu demee ba mënatu ko ba ba tële la ko bàyyi la ko la ko la ko mënatut waaye wax nañ ne sax daana làmbatu di ko def làmbatu di ngir bëgg def dara kon jàmbaar yi nga xam ne ñoom la wuutu woon ay jàmbaar lañ lool waaye seen jàmbaar ga mi ngi feeñ njàmbaaru maam Cheikh Anta kon kooku na ko ñëpp dolli ñaanal ñëpp dolli ko taafu ci barkeem ndax la sëriñ Saliou seere woon ci suñu soxay bu ne waaw moom day sallaw suñu soxay bu de jàmbaar la lool ndax adduna daa xat lool adduna daa xat lool mu ne fi ne fi ne fi ne ba bàyyi koo fi te yàqu fi waxu fi lu koy yàq lu koy yàqal def fi lu ko yàqal def fi lu yàq wax fi lu yàq te lu mu fi mën a defar defar na ko loolu Sëriñ Saliou moo ko moo ko seeroon Sëriñ Souhaïbou nee na wax fi dara lu yàq yomb na lool waaye Sëriñ Souhaïbou de jàmbaar la ndax nee fi ba jóge fi te yàgg na fi ndax am na fi juróom-ñaar fukki yu teg te nee waxu fi lu yàq def fi lu yàq te lu mu fi man ci defar defar na ko loolu it mën na suñu ko wax ci base Anta ku a jóge ku a jóge Touba mbaa nga jóge nii di ñëw soo xasee jàdd raaraan bi rek sa xel ci mbuum moom mu daan sal nga lay lay nekk tënim mu daan sol takk ndigli ba noppi tim Amar man fekk naa ko ba ab dong nga ko jàppe boo xam ne de maanaam ku ke ku du kenn rek te fekk boobu ma nga fees del del del del del waaye bugguta yëngal boppam ba nga xam ne daraa ngi ci moom waaye képp ku njëflanteel ci bëtin xamoon nga ne am na loo ne ci moom kon kooku yàlla ñu ko yàlla fayal loolu nag day wane rek mag ñu baax ñi euh, seen su ma nee mag ñu baax ñi nag waxewuma ko comme ñi ko baaxoo waxe mag ñu baax ñi mooy man magi Sëñ Tuubaa yi wax ñi Sëñ Tuubaa noppi ci ñoom ñooñi laa wax ne mag ñooñu suñ mag ñooñu day wane bu baax a baax a baax loolu ñi nga xam ne loolu moom lañ nekkoon sa ñaari tànk yi nga dig li ci amuru ba ca juróom suuf wax nañoo man ma dégg nee nañ ma mosoo def loolu laa di fekk yow mu das asamaan si yi nga tiim itam ba ca juróom-ñaari asamaan ñoom ñëpp la ca amuru ñëw nañ wax ak man nee nañ ma mosoo def loolu astaxfirullaa di fekk te booba ay atam dëgër na ndax Mamadou sa jaar na ci daaray ma daaray suñ Mor Anta waaye sëñ bi da ko tax tegal nag waaye damay coobaree suñ borom duñu war a topp tax ko ñu topp laa Mamadou Assa ci ak xamam bu wér ca waaw waaw borom teen bi day daa bëgg a jaxaseeg borom géej gi géej kon amon na ten mom jambar la di ginnaaw fexe na ba amuk ten te booba señ bi am am potom da sax yombut mu mën fexé ba amuk ten ba yax borom geej gi itam nan ko borom geej gi da borom ten bi da bëggoon fop tenam bi jaxase ko borom geej ñu bok señ bi ne ko yaay yew señ bi ne ko mu da sa yaay yew daa ne ko waaw waaw nangul lañ la ko de ta firna ji dina la ko won fi ci aduna bala bala yomal xiyam ba nga xamne ba ñepp xamne ma ngi yow ñu bok geej gi foofal sa teen bi sotti ko ci sama géej gi ñu bokk ko far daan ko nag dinaa la balalal ay tiwoo yu soqi koo ci sama géej gi ñëw ci yow bañ xam ne yow yaa yow maa yow bokk géej tiwoo yooyee mooy Sëñ Abdou Lahad benn tiwoo bàyyi Sëñ Sohaybu bu beneen tiwoo bàyyi Sëñ Saliou kon kooku ginnaaw xor-xoraloon ba mën a am teen sëriñ bi it wax na ko bis ne ko suñ suñ dajewutoon maag yow du tee bu ëllëgee nga ràmm ñu bari daan na ko waaye nag naa la fi jox loo fi indaali kon lu waay baax baax baax baax baax baax baax baax baax te yooyee jamono suñ boroom la la soob mu def Sëñ Tuubaa ni mu ko def ku ko lu rek sax baax des na kon Mamadou Assa dund yi nga xam ne moom lañ nekk ca ba mu toogagut ba mu toogagut di wëreelu nga xam ne boobu dafa nekk di wër jàng ba am xam-xamam ca yooyee jamono te loolu boo boo delloo ci boo delloo ci ginnaaw tuuti itam dana dikkalaat wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni bi gàncax gu set gu sell rek moo mën a moo mën a jur meññet mu baax mu sell moo xam ne koo gis xemeem ko ndax maam Mouda Sa ñaari wàllam yépp dafa set sell ndax soxna Aysatu mi nga xam ne mooy waajuram ku ne xam na moom rek doyoon na waxtaan mooy waajuram mu jigéen boobu te ab xam nañ ci aslëf kon maam Mouda Sa moom yi nga xam ne nag mooy boroom dëkk bii te la sëñ Tuubaa doon wax naan li may def ci nit ba nit ñu topp su ma ko defoon ci garab ñu wër ko te duñ fa jóg te loolu julli rak ñaar rakkaa ko gën a tuuti ci man moo ko gën a yomb moo ko gën a joxe ci man Mahmoud Assayid lim def ci dëkk bii lim def ci dëkk bii dëkk beneen ba mu ko defoon burut bii ku ko dégg da nga ko fuuti waaye fii la yàlla dogal mu def ko fi mayu yàlla gi am yëpp fii la ko jóor tayit sëñ bi bu ko suñ tubaa seereelee suñ tubaa kum seereel rek jàll nga te suñ tubaa moo ko seereel ne te Sëñ Tuubaa mu amone deg deg mboolem lu yalla sakal ak ru muy wax muy deg mom Sëñ Tuubaa bu dee am mbott la day meuna deg la mbott may wax bu dee melentaan Sëñ Tuubaa day deg la melentane wax mboolem ñanaaw yeeg yep lepp luñ meuna wax Sëñ Tuubaa da koy mën a wax nako ne ko lu amuk ru lu ne xamal la ma yow musa def loolu astafurlaa di wax fek te Mahmoud Assa na juroom ñen fukki at yu teg tisoon wa tisoon la lay wax juroom ñen fukki at ak juroom ñen koku jambar la de te mosu fee tax lu ko laa di fekk kon sëñ bi xawma ko amutub sëriñ waaye ñun am nañu sëriñ xawma ko amul wéeruwaay ndax keroog ba muy jébbalu ci sëñ Tuubaa di moom jébbalu wii ni woowee mu jébbalu miinee su ko woon ci commencé jébbalu donte ay njébbal fekkoon na ko fa nag waaye nam jébbaloo wut nag nu ko neen jébbaloo te feeñ na ci moom ndax dafa wax ne ci tànnuk sëñ Tuubaa la tànne moom te suñ tubaa mi ngi tànnee ci taanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te keroog ba mu koy jébbal ak njabootam mbokkam mu baax moom it mu àndaloon mu ne ko maag yow nañ fasante ku njëkk a gis borom jamono ñuy jébbalu ca moom te boo ko déggee boo ko gisee nag ma ko wax bu ma la ko njëkkee gis wax la ko ba mu demee ba wax ko ko moom gis ko wax ko ko ne ko gis naa ko jox naa ko sama bopp ba yàlla dogalee sëriñ Touba jàkkaarloo Mamoudou Assa moom ba mu koy jox boppam da ko ne joxe naa sama bopp waaye kee gis du ko ñu jox dara doo nga bàyyi dama ko jox sama lépp te loolu Kerak ja moy kérok bam koy jébal si yëm sut ñu bari dañu wara xamné ñu bari dañu jaxlé jëm ci suñ tubaa am na ñoo xam dem ba xamatuñ fiñ jëm te mënu ñàkk ñaka dem ñu dem ci sëñ bi ngir mu yeggalé len waye nak ñepp la sëñ bi bolé dimbali waye ka ci am ka ci gëna am dimbal moy ki sëñ bi tanal bopam mamoudou Assa kérok ba muy ànd ak sëñ am sut di dem di dem ci siara ji bi demutoon ngir di ko jébbali sëñ sutu déedéet mag ñi dañoo baaxoo fa ñu dem dañuy and ak seenub santo seenub taw la andal mo leen di ngàbbal satala di leen teyel seenu fas bu ñu war warat kër ba muy dem bo wak ah, na xamone Mamoud Assab mam Matar mam daan andal mam Matar mu yaakar na ne bëkk ni bu bu doyoon waar la nak ndax lu suñ Mamoud Assab massa massa doyal danaa ko doyal doyalaale naa manam bu añ bi masaana bu ndékki li masaana naaj ci misal bu simu mudaas si jogi jóge maam ma ma mudaas dafa amone ben dignité mu nekkon ci mom bo xane bu xasse ba deug ma dara ni du depp mam ndékki li heure bi mo ra ñew bu ñew da nan surna matal mi ma andal surna matal mom di bëgg dé rek so demé ci kërit heure bi heure heure heure heure demam jot du fa xaar njël luñ ko doon luñ ko faran togal danan doyna matar mi ma àndal nee na doy na laxas kooku ak yalla xamne ne gémmiñ gu yàlla ci duggal lu ko lu jamo yalla kero Mamour Assa bi mi and ak si imsatu ñew bam koy jébbal jébbal bu jébbale si imsatu tay may bo ay bëtëri bo doon bo doon rox ay bëtëri bëtëri ba nga ñëk duggal moy mooy maas yëpp njëbbalug si imsatu ci la njëbbalug mbolem lu aju ci ëpp si Mamour Assa walé tayit seyam sutu suñ tuba muda sa néew ko dama la bëgg jégg ci jébb sama doom ji kii nu mu mu ne ko masata mu ne ko nañ koy wax xam sutu sëñ bi ñaanal la sa dem won ko ginnaaw bay dem mu waar ko mu ñëw mu ne ko am sutu moom la bëggoon nga bàyyi ko fi ndax boo ko fi bàyyi woon dana baax lool sëñam sutu wax naan dana de ci ba yu ma ci kanamu waaye Mamadou Assa foofu it war nañ ko cee sant ndax bu insisté woon ne ko waa baax na bu ma demee danaa ko yebal dara dara mën na caa dugg mënoon na ko ne soo ma demee danaa ci xalaat waaye nee na ci si sut nee na ci sama mag yi la sëq moom Mamadou Assa dana këfit sama mbagg yi ne ko cërëb mel na koy dóor ab birig ci kanamu Sëñ Tuubaa ne ko jébbal naa la ko moog lu aju ci moom jébbal naa la ko moo ki rakkam Balla dugg na Abdourahmane dugg na Alassane dugg na jaba moog jumtukaay ya nga xam ne ñoom la ay rakkam yor ca ca tool yi di koy jëfandikoo jébbal laa la daan la loolu daan na ko jébbal naa la am sutu ak lu aju ci am sutu ak mboolem lu taq ci man jébbalaale naa la ko googu njëbal yombul àgg ci ne ko mboolem ñoom ñii ak njureel ji dox sama diggante ak ñoom dindi naa ko bis naka tey wékki naa la ko bu ëllëgee na la ko sama borom laaj si am sutu jaate ak i rakkam bu ëllëgee àq njureel yooyu moom la ko la koy laaj te Sëñ Tuubaa am na lu tontu ba noppi it ne ko dafa am lu ma bëgg nga seeral ma ko mu ne ko lu mu doon mu ne ko daa am bëgg nga signal ma ko te loolu nga may signal it dama bëgg bala maa jóg fii nga bind ko waaw ah, jërëjëf jërëjëf bëgg nga bind ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko fàggul nañ ne ko mun ne ko da koy bind Maam Mor Assa ne ko danga nga koy bind damaa bëgg nga bind wax ne mboolem lu laal ci njaxate ëllëg yuma xeyam rakk bar fañuy ñuy jam ñek ak ak yeen fay dégg yépp li lañ cey am té boba ñanga ñanga ña nga fir daw si bindal moo tax siyam sutu jaxat daan wax naan taalibe suñ tubaa de yom na lool wala jafe na lool waye limi jafé jafe jafe jafe nekk taalibe am sutu ko gën a jafe te nekk taalibe sudu sutu nek nekk taalibe mamoudou assa mooy nekk taalibe sëñ abdourahmane mooy nekk taalibe sëñ mamballa mooy nekk taalibe sëñ alsaan ndax ñom ñepp genn gum gi kep la go ci ci keneen wuyu la ndax kër mam mam abdourahman ba ko suñ tubaa di wax lam koy wax ne ko demal tooga ma sa kanam mu bay bu bege nga bég to wax na ni mamoudou sa bokku na ci ay kàddu bi mujj moy sant gum don sant suñu abdourahman kon suñu abdourahman bég na fexena ba bayam bég te suñ tubaa de ko non bu bege nga bég kon nañ xam li li ñu am ñun xa ñun gone yi ñun gone yi ñu xam li ñu am lu ñëpp di wut fii la am fii képp ku bëgg dara teg fa sa tànk képp ku doon dara ëllëg it doon teg nga fa sa tànk ndax Cheikh Mamadou Fadal ñëw na fii daan ne waaw li ma xamal ne fii mewndu de mooy garab gu mu jub rek muy tari alxuraan garab gu mu jub rek genn garab gu fi nekk daal guñ dugg jàng fa alxuraan xob yee ma koy wan kon fii mooy ëtt bi naanukaay bi fii la kay bi fi la ndax ka tax sigem sutu am ka tax ma ma ma ma mbala am te ñun ñep ñi ay jum yo xam mo moo leen taalal boppam defal leen ci kanamu suñ ñi ko ke mo ne fi muy Mamadou Assa barab bi woyef na lol de boy xol barab bi ni bo duggé ci armée bi so duggé ni woyef na lol de way ak 10 ci bir ndax ak ak 10 ci bir kon ma Mahmoud Assamou mii day baax ñuy xam ñuy xam ab tolluwaayam ak ak ak ak ak ak fi mu nekkoon ci Sëñ Tuubaa loolee mu doon korkoral soo demoon mu doy ko waaye doyloowu ko ndax xam ku mu xam ne yàlla jeexalu dara te yàlla boo ko doy wërti lu ne mu jàpp ci sa loxo ne maa ngi nii wala si na jaahadoo fii naa lanahdiyannahum naa moo tax mu jël lan jotoon a am takk ko ci ndiggam woon Sëñ Tuubaa ne ko du ma kenn تسنج ما منفضل الله له والله يختص برحمته من يشاء ويسنج وا تيو باراي سين بروم مو ديف كو نيم كو ديف ندخ دا نوخ سين سوت جاحت نكو ام سوت ما خم غنا جام يالا كو نه بات سين بروم دو فاي كو جامي بو جامو يالا با نيو با سين بروم بروم من لاي خول با خم سوما تي ديفوت بن رياكسيون مونكو لي غا ديف باخ واي احمد واخ تي دارا ñu xam ne maam Balla mën naa nekk fële taal ab seebam taal ak gilinam muy tàkk Sëñ Abdourahmane nekk fële taal ak gilinam muy tàkk Sëñ Alsaan toog fële taal ak gilinam muy tàkk waaye bu bëggee gis seebu bi dëgg-dëgg nag fii lañ ko taale seebu bi fii la tàkke ngaa foofu sa gilin ngir ngir mën a def foofu am sébbu ngir ngëneel li mën a àgg foofa kenn ku nekk daj waaye kenn àqi njureel àqi njureel àqi njureel ku ne xam ne ko ku la jur moo koy moo koy moo koy àqoo ginnaaw suñ moom ne suñ Tuubaa ne Mamour Assa nee na dindi na àqi njureel yi yim jural ay doomam moom teg ko ci ndoddul sëriñ bi te sëriñ bi nangul na ko kon ñooñu ba sëñ bi ba leen ko sëñ bi nangolee fa saasa kon lu ñu doon ban wàccuwaay la ñu am kon ñun ñëpp nañ maase xam ne li ñëpp di wut fii laa am ci ñëpp di wër walla boog ñi ko xam di ko wër te di ko bëgg buñ ko làmbee daj ko fii te Mamour Assane na ngeen xam ne jébbal woon zone Sëñ Tuubaa rek ñëwaat toog déedéet daa bokkoon ci ñi daan dajale ay addiya te addiyaam naa leen wax ni mu ko daan joxee moom la ma waxoon Sëñ Tuubaa ko jébbal naa la ko moo ki rakkam ak ak ñi aju aju ci kër gi ñëpp da koy firnde ci saa buy joxe addiya fu mu yëg ni sëñ baa nga fa buy joxe addiya day miiraas boppam miiraas waale mboolem li ci kër gi yóbbaale ko su àggee ne ko ndénkaan la ma dénkoon a ngi nii kat moomu ko te mooy bu buy dem ci yoon wi picc mu romb muy wax ci garab mu wax la picc may wax suy ñibbi si diig bu mu romb bu fa nu mbopp motto yi dee ngoox muy wax la mbott yee wax addi yi ñu indi tam addi yi ci ñëw mu wax fa fa ko borom jëli ak nam def ba am ko lu ca bokkul mu génne ko doog a dem nag gis Sëñ Tuubaa di bànki tànkam kon war ñoo xam wér ne yëf yi continuité rek lay mën a doon dëkk bii mboolem lu fi sëñ Tuubaa defoon Mamoudou Assa liggéey ko fi jolli rek lay mën a def yàlla ñu yàlla boole ca ña koy jollil nag ndax day dikkaat ci biir la sëñ xam ne waxoon ne darajati taxlu walay sa tan xafit wa man naha min al wara xaf di xufit sama daraja yëkkatiku ne te dootul laal suuf mukk képp ku ko jiima kii suufeel yaay yaay suufe far dëkk bi it ñu xam wér ne bëtin bu bu kenn wut moo fi nekk ndax koo xam ne yàgg ngeen ko dégg waaye yàgg gi dégg tax na mu mel ne daa kii daa kii maa ne tut te nit ki gàllankooru ñàkk a lekk lu law mën na ko xañ ngërëmul yàlla Mamadou Assa suñ borom defal ko ci biiram lu ci dugg te du noonu day génn fa saasa bu ala alal diñ ko joxon ci àll ba sax wala nit ku sàcc indi ko sax nga mën wax waye kako ko doon jox loola bam ko jox aw yu la ci jiblu won kako doon sangal sax aw aw yu la ci jiblu won yu waye mu ci jiblu won nak motax bi ko mamour sa ko fa sa mu gennat mu ne ko sama borom dañ ñoo defal ci suñu biir lo xamne kat kep ko xamne ne lo xamne xam ne na ci ta du noonu day gennat fa sa kon kok suñu borom defaloon defaloon nako tawfiq du lek riba du lek moyal motax lu mu wax rek yalla def ko ma ñi ñi ñi xam siram deug deug deug bàyyi si xam tamit net li na neena loko na ma sa wax bu fekke jubu nako waaw bax na demal la lay wax neena mbir mu ko nit ma sa wax lu mu jafe jafe jafe jafe jafe na la waaw bax na fay baye bo dem boy àgg di gis lan wax fa kon ñun ñi nga xam ne dañuy ay gone te nekk ci dëkk bi wala ñu aju ci kër gi am ngeen lu jafe nit nag day am dara ba noppi te doo xam ne am na ko tey jamono ji yi xew daa bari ku bëgg ab sëriñ buy xoy xoy nag bay ba wuti ko fa neen amul fii moom fii moom da ngay fekk sëriñ bi mu gën laa nekkub donga moo tax pour nga jariñu ci moom day xaw a jafe te sama classe gii sëriñ buy xoy xoy yi lañ bëgg ñii nag dañoo dem ba jeex takk takk takk takk ba seen bët yi gisatul fii moo tax seen bët yi gisatul fii leneen lañ gis loolee ñu gis nag képp koo xam ne jàpp nga ci ñoom te bañ a bàyyi ñu ñu ñu xeeñal la xet ga ba mu xeeñ la ba dara du la safati ñun ñi nga xam ay ay donga lañ ta nek ci daara ji nek ci kër gi mo xam dañoo yolomal ñu nek ndakaar mbaa ñu nek fenen nañ fuñ mëna nek nekk won bu wërni ne jumtu kay mamoud asa lañ jumtu kay mamoud asa nak ku ca bok fo mëna nek ab kay nga wara doon ta mamoud asa kat nañu dama jëlal mamoud asa way bay seex anta dem barki dem kep mi ngi ci suñu jotaay bi ndax bu fekkee la yàlla wax ne ku na mel da nga am nangam lolou lepp doon na ko wut te wour nañu ni am nako kon nattabli wuñ ne kon mi suñu dama jël ay sëñ Abdourahmane nak ay sëñ Amar Jaxate ak sëñ am soto ak ñoom ñep sëñ sëñ Baye Cheikh ante mi dem barki dem laa ne mi ngi ci jotaay bi tay la ay bëtam gëna neex tay la gëna mëna dig ma ngay na rappel par ben ana diw gisuma fi de dal la la tay ñew noonee ñi nga xam ne nan nan la ñuy gisee ca ca ca la war nag ñu nekk ca ñu ñu nekk ca noona bu ñu nekkoon ca lu ñu warut noonu la ñuy gisee di am gàcce foofa teel bi yëpp war a jub waaye teel bi Mamoudou Assa moo ci rawati ku aju ci Mamoudou Assa moo ci rawati ndax kat Mamoudou sa suñ tubaab defaloon na ko ci ay doomam loo xam ne kenn mësu cee gis lu ñuy mooy lu ak mooy yàlla loolu suñu mësut wax na ko ba tey bu ñu mësaan gis ni bu ñu mësaan a jub nii loo xam ne lu yàlla tere la suñu borom da leen luy defal ab rideau boo xam duñ ko gis ba ba jàll nga xam koy wax moo tax jigéen sax mën naa ñëw jox leen loxo ñu jox ko loxo ah sëñ bi xanaa xamoon ne jigéen la mu ne ah lu lu ma xamal ba xam man damaa xàmmee góor ak jigéen a ñoom foofu lañu àggoon waa koy jërëjëf euh, xam naa liñ ci dolliwaat ci ay kàddu yu gàtt lay doon euh, su ko defee li ci des ñu bàyyee ko kilifa yi euh, ñu sant bu baax di wax na rek liñ ci doon tënk rek mooy ñu xam ne lu baax dafa yombut te ñun ñëpp lu baax lañ bëgg soo gisee waxin wi ni ñu ko waxee da di comme lu baax lañ bëgg te lu baax am na fi ñëpp kenn ci ñun nattable wul ne lu baax moom am na fi te ñun moom lañ bëgg yoon wani yoon wañi mën a jaar nag ba mën a am lu baax loola fokk ñu di ko waxtaanee ndax dëkk bii dama jëlale kuñ ne Mamadou Assa Diour baayam sax duma ko jëlale waaye bu fekkutoon ñooñu képp keneen koo fi mën a fekk tañ ne am na lu mu doonoon ci moom wala njabootu Mamadou Assa soo ko xoolee da xool yaram ne gis ne kii jeex na takk takk takk léppam jox na ko yàlla deseetu dara te loolu xoolee ci tëli bi yi nga xam ne ñoo toqoo woon ak njabootu Assa bi da nga leen koy tënk ñu gis amuñu bëgg. amuñu lu ñuy jañ amuñu lu ñuy ñoddi lépp dañ ko jël jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko yàlla te loolu tund tund loolu tund wu wii moo ko aayee nga di ko wax waaye fi ne boo demoon ci waneen tund yi fekk fa mel noonu ci misaal boo ne woon tuuti dem ci la daramaan gii da nga fa fekk ab jum bu fay tàkk soo ne dem euh, kër ma ñaaw gii fekk fa lu mel noonu comme lu baax nag dafa am nga xam ne kenn nattabli wu ne fii moom bu doon lu baax lu ñu tibb la di séddale ku ñëw fii dañ koy séddale da fekk ay bagaan nii fekk ñu di ko séddale ndax baatin moom ku ko bëgg gisut yow gisut ak ñoo xam ne it baatin arrangé wu leen ndax amulu leen benn njariñ amulu leen benn njariñ waaye ku yàlla mën a xamal tuuti ay bët nga xaman a am tuuti ak dégg-dégg am tuuti itam ab gis-gis dana la wër ne fii boo fa duggee jaww ji rek dana la wan ne fii daraa te jaww jaww jaww ji jékki-jékki wut mel noonu ay jëmm fi nekk yuy am yu muy jëflanteeg seen borom ba jaww ji tàmm loola saxaar sax bu bari woon ci ci ci ci àll bu yàggee nga gis jaww ja nuru ko nuru saxaar sax ginnaaw saxaar képp moo mën a jeexital nag ci asamaan waxuma laa kon nag leer goo xam ne day balle ko ci ci jëmm doomu aadama di dem ci kaw te suñu borom wax ne lin sàkk lépp doomu aadama ci gën a gën a moom gën a moom la ci gën a bëgg kon la doom adama ci jëfëndiko leer googee la tax ñuy wax nituk yalla dëgg dëgg dëgg dëgg mo am fi kon dañ ay gone nak nek fek suñu mam ak suñu baye tay ñun xamaguñ li ñi wax lum mu doon bis set ñu ji nafar lim ñi bëgg lo lan la ñu jim ko xam da ci bok yokku dara ci suñu aduna man nga defar sa aduna bam baax mel man na wara mel kenn du la gis dila la xeeb mu la ab sarax te teewul nga fess del ak leer fess del ak suñu tuba fess del ak bëgg yalla loolu wut ak mom dara so gisee seigne touba dañ wax naan aqlami ila ilallaahi habidan bila khalwatin la koy waral moy nit mën na yoru kurus di ca ñoddi di ca ñoddi ba kurus ga am lu ko indil indalel ko leneen lo xam ne arrangé wu ko man ngay ñoddi kurus mom da ngay ñoddi rek di ñew ya nangam ya nangam ya nangam est ce ya nangam jooju bu ñew ya nangam kesse kesse lay doon man na am ay yëf yu mu andalat yo xam mënu mënoo ko delloowaat ndax ñoddi rek nga man yow waye lay delloowaat affaire bo amoko te man na dikki lëjël la suñ tubaa nag ne tuwassilu aqlaami ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin sangul ba set sol sa mbasin riis tuuroo sa parfum toog jàng sa gis bu teewlu yàlla ak yonent bi ak suñ tubaa jóg dem liggéey doxi sa yitte te bu ëllëgee fu gaa yi nekk nga nekk loolu mooy mooy li suñ tubaa defal ab ay taalibeem day gis nag ko xam ne day yegg ci fa mu jëm te yëg ne yegg na maanaam yegg te yëgoo ne yegg nga dara ne ci yow fi ne nii bari nañ ñoo xam ne fi ne nii dara nekkoon na ci ñoom waaye gént yu bari yeeg lett li gu gi tax na dem na ba dëbutu amatuñ dara ñoom ndax luñ la jox ci ay gént nga jël luñ la jox ci ay tegtal nga jël luñ la jox ci ay bëtin nga jël ah sëñ bi yow daa mel ni biig dama la gént gis na nga te fekk nga ne ko waaw man de démb de diw doon na ma ko wax fii te yow bañ lay gént wóor na la ne yaa ngi nelaw ba sànni say tànk te bu dee ñun suñ sëriñ ci liñ lay def lo ñom ñokay and ak yow ñom liñ lay def lo ñoo la koy bu dee tolé ya ñoo la ca mën fuuf bu dee liggéey bi ñoo la ci mën fuf ta li ci gëna a moy dañu bolé liggéey ak tari alcorane fi ñëw na fi aw yoon wo xam ne sama bay la andal ak ñëw fi mo ànd ak Baye Amar muy wër tolé limi li wër tolé lepp ak di boutique ñax yi mi ngi tari alcorane nekk ci dëkk nag sa baay yaroo fa màgge fa jur la fa ba nga doon fa la nga doon mu wan la dëkk ba wan la jeexit ja nga ko di wuti faneen bis dana ñëw nga tàllal ay loxo di ko di ñaan loo koo xam ne danaa la man de moo ne lii nga may ñaan loo lii dëkk sàngam ba nga ne fa nga juddoo fa laa ko jële loolu gàcce mënu ko weesu nañ xamaat suñ bopp nit day am day am ndono te ñun fii amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko gën a baax amuñu lu ko gën a leer amuñu lu ko gën a wér càllale lagi gudul cal ñun suñ ki suñ suñ suñ ñu bax ñi càllale li gudul mamoud Assa ngi nii rek nga ne gees daal yem ci sëñ Abdourahmane sëñ Abdourahmane seigne Cheikh Anta jeexna na nga ne waat gees gis gis Mame Balla ne war gess gis gis gis seigne Abdourahmane sëñ seigne sëñ ngi ni tok kenn rek dox digganteem nak Mahmoud Assa te maam Modou Asta moom la wax ne mo doon wax ak lolou seigne touba amul diw ak diw diw diw diw di bàjjanam diw di bayam diw di maayam diw di bayam diw di bayam ba mag ci maam Modou de déedéet seigne abdou rahman Modou Asta jeex na amul la neen maam seigne touba talal la gi gatt na loolu kon lu ñu amut ci ñun la te li ñuy wutit am fi te ñu ko fi def doyewuñ ko dara ndax seeni bagan fess na bàyyal nan lan koy jariñoo ñu non non noonu ci la nekk nii nan lu leer ba mu ko jariñoo leeral nu rek mooy mooy ginnaaw am na fi te mi ngi fi jërëjëf ginnaaw am na fi te mi ngi fi te ki ko fi defit da ko fee bax bu fekkante woon ñoom lañ def dañ koy yóbbaale kon ku ñëw da ngay da ngay ruujaat waaye ñoom la ñu ruujoon ba mu set bés bu set day gën set tos ga di gën a lo fa bay muy gëna a tol mamoud assay yi moy tool yi mooy tool yi dëkk bi ba léegi soppiku wut suuf soppi soppiku wut lim nang boko fi bayee rek bu bu bu nga xam ne bay rek wo te moom Abdou Rahman ba keroog bako bako bako bako seigne touba bi yabal ci Mahmoud Assey da ko ne bo démé na nga fa nek na nga ma fa nekkal ci sa baye te wutal fa sama jëm ta di ko xoole bëtu baay te wutal fa sama jëm xam nga lu mu ko waxoon dikkaat na wax de lam ko waxoon ne ko jébbal naa la àq njureel ji mu ko boo demee na ko xoolee sama jëm lépp lu luñ ko war a de dee ko ko laggante daan na ko lépp lu mu daan suul ca barab di fa xaar yàlla na ko ko fa suulal di fa xaaral yàlla mooy mbay bi xool suñu tubaab noonu la ko daan waxee lepp lu mu daan suul di xaar yalla nang ko ko fa suulal difa di xaar di fa xaaral yalla bu bege nga bit kon ñun ñi nga xamne ay manam ndono yooyu ci lañ juddoo ñun amul lu ñi lu tambali wat amul lu ñuy wat lu sof la sof ak sos bokul sos fu dara nekkut lañ koy def fi nak dara dafay nekk ba nopi da ngay ñëw rek dugg ci biir mu yobale la na ngay dugg ci biir moy set ci ci yam fa la sab sëriñ yam loo xam la la sab sëriñ xam loo lam loo xam lu wut nga bañ caa am xam-xam sax ci ay ndigal bàyyi ay tere fexe ba it tasaare sifaatu saadixil muridi bixtisaar nga jàngaat ko ba mokk gën koo mokkal asidqu fi mahabbati seyxi abat sumum tisalu amrihi xay su warat la wax bëgg sab sëriñ ba gënal la sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa bàyyi loolu sart sart murid Sunum tisaalu amri yaay su warat sa so xamé ndigalam neena tip bala ndigal la rot nga juk tak sa ndig na bay Cheikh antalan def ci kanamu maam Abdourahman lol moy lol moy yitti ji rëy ci soko topé nak tar ko ihtirad da ciy dikk tarkul ihtiraat day dik moy señ bi wax ba ga gané señ bi da xamul rek wayé lol day yak ak mourid ak inkar mooy sëñ bi wax àgg ba ngay indi ak gaaral ci biir li sëñ bi wax iska loolu yàq ab murit bu sëñ bi xasee wax li muy wax ndeem sëñ Tuubaa nee woon na la bu jébbalu ci sëñ bu ma tutub sëriñ kon bu bu xasee jébbalu ci moom mat na la sëriñ yow yaa ko doyloo sëñ Tuubaa bi bi ko Cheikh Ibrahima Fall di laaj sarti murit ab murit nu muy àndee ko ab taalibe nu muy àndee ko moroom ab sëriñam nu muy toogee ko sëriñam sax la ko njëkk a wax mu ne ko bul toog ci wetam dee ko daan bul toog ci kanamam del wetu bu ko ne jàkk di ko xool del lamsal te lu mu wax lu wax ja bari bari bari bari bu la ci duggul bu ci dugg loolu la ko suñ tubaa tontu bu bi ne lii lu mu ne la ab lii lu doon ne ko lii de mbàkke ak kurus la rek te yem ca bu ko ne kurus gi de nangam lay jar diwa koy nas loolu lépp laajaguñ la ko ne ko ak kurus la de mbàkke bu la nekk kurusug lu mu la nga ca xam nga wax ko ca te noppi tey bu ko tontu lu gàtt loolu la ko Sëñ Tuubaa tontu mu ne ko ab sëriñ ab bi ni mu dëkkee ko sëriñ dëkkiinu bi mu ne ko bu ko ñooxu ba di ko yërndu waaye bu ko dànd ba bu la soxlaa nga yéex a ñëw te saa soo xëyee lépp luy defar kër gi dee ci xëy ak gont kon sarti murit a ngo mu ne ko addiye mooy lan ak nuñ koy joxee mu ne ko laaj nga lu jafé joxé laaj nga lo xamné it lu mata laaj la laaj nga lu bari ndariñ waye mënees na la caa wax tuti ci ay ndariñam la ca gëna tuti moy day yaatal bàmmeel ëddiyee day yaatal bàmmeel day woyofal suuf suuf bàmmeel day gawa taxas di nit ki mëna jéggi sa sirat day woyofal sukuraat te tax bu ëllëgé ñu teel la xamé ci sama ñoñ day tax bu ëllëgé ñu teel la xamé ci sama ñoñ daanaka waaye ëddiyaak asaka bokkul addiya ak sarax bokkul ni ko sañ a lekk addiya sañ te lekk sarax sañ te lekk asaka daan ne ko sama sang bari na bés mu ngi dox ca mbedd ba far aw miskit dem ba koy waaj a sex mu yàbbe ko ca maanu ga ci yàlla mu yónni bu mu wóoroon ne du du du sarax ma lekk ko kooku daa sañ a lekk addiya moo tax sañ te lekk sarax daanaka Ibra Fall digal naa la saa sooy génn saa sooy joxe addiya lu cay sarax na génn lu cay asaka na génn ba nopp nga doo ko joxe addiya ñun ñii nag lee léeg nga gis ko war a joxe ji addiya sàkk ca asaka ja mbaa ab sëriñ bu la waxoon ne la saraxeel nangam nga yóbbaale ko ma ne sëñ bi damaa waxoon naa saraxe 7500 waaye naa ko far joxe joxe sëñ bi addiya loolu du addiya sarax la seex bi dafa daal di tontu sëñ daal laajaat sëñ bi ne ko ab taalibe bi bu ko ab sëriñam yónnee lu mu gisut nu muy def mu ne ko bu la sab sëriñ yónnee waa sëñ bi dana ñokkat jóg ñëw bàq ci seex Cheikh Ibra fab loxoom teg ci boppam Cheikh Ibra ne ko Ibra Faal mu ne ko mbàkk mu ne ko sëñ bu matub sëriñ du yónnee lu mu tegul bëtam digal naa la bu la sab sëriñ yónnee demal ba indi lam la yónni mbaa nga dee fa waaye bul ñëw ne ko ne ko dañ ne ma wala dama ne léegi nag sëriñ bi boo jébbaloo ci moom mu doy la sëkk ab sëriñ nga nekk moom ma nga dem ba jëmmi jamono doyatu la man nga ko fa baye te wuti benen serigne waye bu tok ci garam palaas yi di ko waxtaanee loolu lañ lay téré man de serigne jiw doon man de man de serigne jiw doon sama serigne waye bama ko gisé mu def nangam la ko baye lolou serigne tubaab la koy téré man nga amum sub serigne ba jóge ci serigne bobu dem ci benen serigne te kenn du xam lu tax nga jóge ci serigne bobu ndax sutura waye buñ ne serigne jiw de nga né ñu na man de mo nekkoon sama serigne waye man bama gisé mu def nangam la ko baye yow matutoo ab tëli bi ci kenn yow bay nekkub serigne bay nekkub tëli bi kenn. loolu ci ci sarti sëriñ sëriñ la bokk ci sarti ab taalibe la bokk ginnaaw nag sëñ bi nee na du yónni lu tegul bëtam moo tax Cheikh Ibrahima Fall bis dafa am ku sëñ bi yónni matt jalamaan sëñ bi jàngaloon na ko sarti taalibe ba nag mu dem di wër ca àll ba matt ga gisu ko mu ñëw ci sëñ bi di ko wax ne ko gisuma matt ga matt gi ma doon wurloo de mbàkke wër naa ko ba sonn gisuma ko Cheikh Ibrahima meeb kookee yan na ko ba ca kaw mu ne ku rëll fi suuf ne suuf yàlla jox dan ko jugal wëri ko ba gis ko mbaa nga defa mbaa nga indi ko ki du yénne lim tegul bëtam sëñ bi waxoon na ko ba yag motax far nak cheikh ibrahim aw tangor japp ko kum tassel ne la hey way genn len wëri li sëñ bi bëgg way mag ñepp andano genn ci àll bi di wër te kenn ñi mu wutal la cheikh ibrahim li sëñ bi bëgg lu mu kenn ku nekk na waaw sëñ bi li li ñu wër lu mu ka ah, ibrahim fal ñepp genn kët aw yat la yor waaye baatin ba ci sëñ bi def ñom ñep dañu tassaro ci all bi di wër kan ku nek matta ga sëñ ba bëggoon moom nga for indi te yëgoowu leen bañ ko tege muy aw say koku yaral khafaya bi haynil qalbi sahiratan kama yasahidu ma tahtal akinaati صادق لو ما بخدمة أو بحب أو وديات tubaayat di muridin saadiqin lawmo bi xidmatina bi obbin awadiyaati tubaayat di muridin saadiqin lawmo bi xidmatin aw bi xobbin aw madiyaati sëriñ Saaliwu nee na addee day fekk fu dara ne mu barkeel fekk fu dara newul mu def fa dara maa ngi ñaan ñu jox ko addee Cheikh Abdourahmane ku ko jox yal na nga am téeméeraat ci doole Cheikh Abdourahmane jërul jóg nag nan toog rek ñu laaj ko jajale ko indi ko jox ko ko maa ngi ñaan ci doole Cheikh Abdourahmane ku ko jox addi Cheikh Abdourahmane bu la nee jëy ci bàmmeel yal na la maam Moudou sa nangu ci loxoom addi Cheikh Abdourahmane jaxate nan ko dajale